sëriñ bi da ko doon defar ci kër gi. da doon defar ci kër gi. doon defar ci kër gi. Mhm. tey bu ñu demee jàkka ja fajar des fois booy jiite loolu benn la suñu jigee jàkka ja am na yenn problème yoo xam ne suñu ko amee ci moom wàll bi muy liggéey du ñu dem fen si kantinam directement la ñuy jubal dem mu lijjanti problème boobu maanaam li ko sëriñ bi téye woon si kër gi yëpp liggéeyul mu ngi doon jàng mais bi ko sëriñ bi indee tëngéej ba léegi mu ngi liggéey. pour wan la ne sëriñ bi bàyyi woon na ko ci kër gi mais da doon defar maanaam ci wàllu yàllaam ci wàllu diineem lépp lam ci war a xam yépp xam na ko mais tey jii nii am na ci lu mu di liggéey di si suturlu d'accord am na am am am na solo mais leneen loo xamee ne que déjà bu ñu bu ñu wax xoolee ci ci ci diine liggéey dafa dem ba dafa nekk taxaw taxawaayu obligation yaw du la tiital nga gis sa ay yeneen ci ay moroom ñu nga xamee ne que peut-être nekkuñu biir ci biir kër sëñ bi dañoo jël daayira bi def ko mbubba su ma waxee def ko mbubbu mooy par exemple euh, li li li ñuy def mooy euh, tout ce qui est cotisation ci ñoom lay jaar ñoom ñooy def recrutement yi maanaam promotion daayira bi dong lañ ne loolu loolu tamit si dëkk boo xamee ne que dañoo war a liggéey wala ci ndaw ñi lañ xaar lañu la ñu xaar émergence euh, nekkul loo xam ne du ñu war a en cause waaw xam nga man moom <laughs> li c'est que est-ce que d'abord est que yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi liggéey waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. yaa ngi liggéey wala liggéey. ñu ngi sant yàlla bu baax. Oh, question bi donc oh, je pense que dafa leerul yaa ngi liggéey wala liggéeyoo est-ce que am na beneen activité à nekk ci daayira bi wala. waaw su ma nee ñu ngi sant yàlla bu baax day résumé lépp. non mais ki ki loolu moom c'est c'est pas une réponse en fait. <laughs> sant <laughs> yàlla la nekk si daayira rek je pense que sant yàlla la ci boo ko tegee ci yoon mais tamit euh, mën nga nekk si si daayira bi nga am sa beneen liggéey à côté loolu la paate paate bëgg laaj bañ a bañ a yem ci cotisation daayira mu ngi sant yàlla bu baax <laughs> dañuy nekk ci ci daayira euh, parfois euh, poste yi ñu fay occupé daf leen di doy pour activité ba xëy na lu mu bëgg a liggéey boole ko ci soit nga nekk président waaw moo moo foofu laay ñëw maa ngi ñëw soit nga nekk président bi wala nga nekk trésorier bi wala nga nekk ci membre yi nga xamante ni dañuy def ay activités di dem ci ay activités culturelles wala di dem ci kër yi di nemmeeku ak yooyu wala par exemple nga nekk jàngkatu daayira bi am na ñoo xam ne suñu nekkee jàngkat dootuñu amati beneen activité bu dul nekk jàngkat fu daayira am ñu dem jàngi fu xew am ñu dem jàngi fa maanaam dañuy dem tëral benn planning boo xam ne jàng yi mooy doon seen seen liggéey bien vrai que na jàng liggéey la mais tamit am na jàngkat yoo xam ne dañuy nekk jàngkat mais aussi dañuy am métier. Mm-hmm. am liggéey ndax euh, am na ci wenn woy yi sax buñ naan taalibe Cheikh liggéeyal ci métier. bu fanqal la gàcce lu leen yàlla sedd na leen loolu doy kon métier moom bu fekkee ndaw nga boo jàngee ba nuppi witam xam-xam ba nuppi am métier baax na ci di liggéey baax na ci ak loo loo mënti nekk ak loo mënti yëngatu nga boole ko ci baax na parce que man gis naa jàngkat yu bari gis naa ay nitu daayira yu bari parce que man mii fi wax ak yow bokk naa ci ay daayira macha allah yàgg naa bokk ci daayira wante euh, dañ ko doon boole ak suñu métier. waaw ñu bari gis naa ñoo xamante ne dañ koy boole seen métier gis naa ci ñoo xamante ne nit mhm. boolewuñ koog leneen moom daayira bi jàng wala dox ay yitte ci daayira bi wala yooyu coordonné daayira beeg yooyu mooy nekk seen. loolu loolu moom moo moo yokk tax ñu andi ñu andi sujet bii nii léegi léegi leneen li ñu xam ne moom seetlu nañ ko ci mooy exemple benn Pathé Mbengue dafay day day nekk ci ci la ka neex ba dem ba am 30 ans exemple. Euh, xëy suba rek dem kër sëriñ ba daal di commencé guddal course yor course boo xam ne si si cheville bi lay toll xam nga donc di di ñot di diine te leer naka ne bàyyi lépp ah. te moom leer naka ne waaw nekkab sëriñ te moom leer naka ne amul xam-xam moom leer naka ne jàngul alxuraan leer naka ne bopp bi lii muy woote nekku si loolu dañ koy faral di seetlu aussi beneen chose moom mooy euh, mariage bi ci seen biir takkante yi si biir daayira bi tamit <laughs> ok <laughs> mais bëgg bëgg naa Souleymane mu ñëwal ñu ci loolu est-ce nekkul genre faux et usage de faux. ok balaa maa balaa maa ñëw foofu ma sox tuuti. si sëñ Babacar li mu doon li mu doon wax léegi parce que ñun suñu président daayira di Abdourahmane Ndion actuellement may wax ak yow fi mhm. moment bi may wax ak nii. Mhm. nekk fi te mu ngi ci daayira bi te daayira bay nga dox. maanaam dem na liggéey ji. Ah, d'accord. nekkul sax nekkul nekkul Rufisque. voyez-vous mm. te ngi dox. ma jël exemple ci ki nga xam ne nii tey bi may ñëw fii dana bul dugg bul jël bul yóbbu sa mboto. bàyyil ma jox la sama oto mu yóbbu la. nga dem ñëwaat muy Babacar Diop mbay dafa dem liggéey ji. kon man ak moo may ànd te ci daayira bi la bokk moo yor lépp loo xam ne nii ci wàllum organisation la jëm. ak ñeneen ñu ma mën a cité ñoo xam ne nii ñu ngi si daayira bi di liggéey te daayira bee ngi dox di doxal daayira bi Amar Fall essant yi dem na liggéey ji Jibilo essant yi dem na liggéey keneen ak keneen ak keneen mën naa cité ñëpp te ñëpp ñu si daayira bi te terewul daayira bee ngi dox bu ñëwee ci waykat yi ñi nga xam ne nii ñooy tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ci nekk ak la ngay def Mansour Thiaw bu xëyee moom mooy moom mooy diriger képp kuy waykat ci daayira bi bu xëyee jug na mu ngi ci kurusam te course ga mu nekk am na leneen loo xam ne nii mu ngi koy defe ji lu bokkul ak course gi maanaam am na ci leneen lu mu jàpp xalifa cubb jii boo demoon port yaa ngi ko fay fekk entre autres mën nañ citer ñëpp donc pour won ne Souleymane bëgguma la bëgguma la dog mais du euh, sujet bi du du daayra bi seen seen daayra mais daayra de manière générale ñi nga xamante nii moom la ñuy seetlu fii souvent mhm. xam nga ku nekk mhm. li nga xam ne nii moom moo am actuellement au niveau national mhm. fii si biir Sénégal gi ñu nekk li fi am ñun ñëpp ñu ngi koy gis am na loo xam ne mu ngi am te warul am am na loo xam ne mu ngi am dafa war a am comme par exemple un ndaw boo xam ne nii dafa dem ba am 30 ans toujours yaa ngi si jeunesse kooku bu jékki saayee rek miir xam ne fa ma tegoon sama tànk du fii dama koy teggi teg feneen fa sama tànk maanaam yoon bii mooy yoon bu baax ndaw jël kurusam lu mu gudd lu mu gën a gudd gën a baax bu doonee mille per sax hmm. baax na nga daw dugg ci diine ji daw dugg daw wuti tarixa bi daf ciy baax mais tamit souvent am na ñoo xam ne ñu ngi mbubowoo daayira yi pour mën a jaay seen bopp parce que xam nga ne daayira bu ma ci nekkee rek man ñit ñi dañ naan non man je suis sage non man moom duñ ma xoolee beneen bët bu dul bëtu diine nitu diine donc nga dugg ci pour pour mën ci am weccit wala pour mën ci euh, c' vrai xam nga loolu loolu souvent souvent on dañ koy seetlu muy muy maanaam moo fainéantisme bi nga xam ne moom dañuy seetlu ci ñi nekk ci ci ñi di xëccu nekk ñooy dirigeant daayira yi euh, fi fi may ñëwee ci foofu sànq maay wax mariage yi takkante yi nekk ci biir ci biir kii bi est-ce que est-ce que sax san nekkul ne loolu mooy gën a inciter nit ndaw ñu nga xamee nekk maanaam danoo matadi ba mel ni man pour dugg ci daayira bu leen leeree ne maanaam tey jii bu ñu duggee fii nii quelles que soient les circonstances dinañ dinañ dinañ dem ba mel ni dañuy guux xelu xelu xale yu jigéen ñi yaa ngi comprendre pour mën leen pour pour mën leen mën leen luñ leen wax ñu ne waaw. man je préfère. Hmm. takk ci daayira bi. waaw dem takki feneen. Hmm. est que gënul yomb. bu gënee yomb moo gën xam lu tax. Ah. lu gën a yomb gën a barkeel. déedéet lu gën a yomb gën a barkeel. may ma ñëw. voilà merci beaucoup nit jox nañ ko fi deux millions. Hmm. mu dem. sëy bi deful trois mois nit joxe na vingt cinq mille francs yi nga xam ne nii mooy dem sa jàkk ji mhm. dix mille yi war a dem fii dix mille yi war a dem fii deux mille yi a dem fii deux mille yi a dem fii mille francs yi fii mhm. maanaam tas naa ko ci ñi nga xam ne ñoom laa ko war a tas mhm. soo leen ma déggee bu baax am donc vingt cinq mille yooyu noonu barkeel barkeel bi xam nga lan mooy que ne vingt cinq mille yoo ñax la yaa ko moomal sa bopp du loo sàcc du loo trafiqué du loo def leneen deux millions yi aussi mën na mën na ma lew tamit mën na la lew comme mën na la bañ a lew mais damay jël exemple ci li nga xam ne nii ci dégg-dégg mooy gën a lew muy vingt cinq mille pour nga liggéey ko am ko mën na yomb ci ñenn ñi nga dem yóbbu ko si nga dem yóbbu ko mu lew la nga xam ne kii dugg ci yow dafa dugg ci yow ngir ngor dafa dugg ci yow ngir sëyal la dafa dugg ci yow ndax xam ne ne moom du dafay sëy ngir alal wala leneen mais dafay sëy ngir jaamu yàlla c'est important. nekkul souvent da ni da ngay mel ni que da ngay gis ne dañuy hypnotiser xale yu jigéen ñi ba. maanaam ci biir daayira ji daayira bi soo seetoo Assane allez-y. je me dis que c'est normal parce que euh, fu góor yi jigéen di daje cofee la fay juddu si dara cette maison bi ñu nekk nii nii ñàkk fu jigéen daje cofee dafay judd ay sëy dafay ko donc li may li may li ma doon bañ nga xamante ne mënu ko nangu nga ne daayira takkee là ñëpp kenn lu ko nangu mais takkante bi je pense c'est assez normal te muy li gën sax quoi fekkee ni daje nañ bokk nañ jublu bokk nañ fi ñu jublu bokk nañ ci liñ jëm te it loolu loo xamante ne lu jaar santé euh, ñaareel bi am na leen loo wax sànq muy euh, les jeunes qui se détournent fi nga xam ne fi ñu nekkoon jusqu'à 30 ans dugg fee en fait déjà c'est une très bonne chose nga gis ne yow nekkatoo si nekkoo woon ci xam ne yoon bi nga xamante moom mooy yoon bi gënoon bu fekkee loolu la ci dugal bien bu fekkee ni loolu moo des parce que ça ça loolu loolu mooy question bi yaana ñu siy dugg pour repentir xam ne lii moom mooy li may euh, jëmale kanam lii moom mooy li may euh, booleeg sama borom yaana ñu siy dugg yaa ngi koy tudd sànq ngir ngistal ngir am-am ngir daraja foofu nag mooy nga xam ne moom mooy problème bi et boo koy jël amul amul bërëb booy dem te doo ko fa gis amul euh, regroupement booy dem te doo amul fu mbooloo di daje foo dem te doo fa gis koo xamante ne li ko fa dugal bokk rek di fa dugal na ci li gën a gaaw ci defar jeune. jeune daayira bokk na ci li gën a gaaw ngir defar la nga doon nit ku baax ku am diine ku am jikko ju rafet daayira bokk na ci li gën a gaaw problème bi kay fi mu nekk mooy nga nekk jeune jël daayira. nekk ca kese bañ koo boole ak métier bañ ko boole ak liggéey ngir am loo suturloo loolu rek mooy li garaw mais daayira moom dafa bokk ci li gën a gaaw ngir defar nit jeune surtout jeune mu doon nit ku baax mais nag soo nekkee ci daayira boole ko ak métier wala boole ko ak di def dara ngir mën a am loo suturloo. loo est le plus souvent ci ñi nga xam boolewuñ ko ñooy andi coow yi ñuy Ah, parce que dañuy bëgg ah, il faut ñu bëgg pour am fa dara loo xam ne dinañ ci mën a euh, faj ay seeni soxla. et heure boo demee kër sëriñ ba da fay ay nit la ñu nga xamee ne que coow bu amee ci biir ci biir daayira rek c'est ce genre de personne ñoo xamee ne que ñoom ñooy taxaw dem ci sëriñ bi wax dem ci président daayira bi wax dem ci membre yi wax dem dem dem dem dem dem bu ñu demee bay waxtaanee lu ñu mel genre yooyu noonu moom moo tax ñu ñu ne ñu ne nañ andi genre genre sujet bu demee nii Souleymane waaw. Euh, ñun sens bi ñu am xam nga moy lan. mooy que ne sëñ Mansour kër ga mu kër ga ñu nekk ci Arafat Tëngéej kër gu mu fonkoon la def na fa sept jours yoo xam ne nii chaque jour ñooy taxawandoo julli sérif jiite ñu ñu naafile ci weeru koor laax de sept jours sept jours sept jours yooyu ñun ñu dëkk Tëngéej mën nañ bañ a xam lan la mais kilifa yi mën nañ xam lu bëri ci loolu sa kilifa nekk xalif général des Tidiane ji nga bokkoon ndox moom julli sept jours est-ce que ne liñ naan tëngéej baax na tëngéej baax na googu noonu ñëwul woon pour feddali moom li nga xam ne nii moom la fa baayam doon def di Serigne Babacar Si ñun tëngéej gi ñu jugee dañ koy dañ koy sagoo xam lu tax dañuy nettali si histoire naan gaar ba boo fa duggee day sedd guy ñu ne lan ñu ne dafa mel ni Serigne Touba fa jaaroon ñii naan sëñ Mountakha fa jaaroon entre autres ñun tëngeej lu leen sagoo Serigne Babacar si ñaata jour la def tëngeej ba gisante gisanteex Cheikh na Ahmed Tidiane Serif ñu joxante loxo daf may sax man damay am kersa Serigne Babacar tu wax ba pare ma cof si wax waxam. mais daal ñun ñu ngi sant yàlla mais surtout mariage yi. ma paate mariage yi lan moo tax mu am solo mooy gis nga ndaw seytaane day dox seen biir te ñaari nit yàlla waxul ne njaaloo baaxul de yàlla daf ko mas a wax si alxuraan. kon yow yaa fi toogal jëm si xam nga Walf moom mm. pratiquement saa soo fi duggee da ngay dégg lu bees wala nga dégg loo mës ta dégg suñ borom dafa ne bul laal bul jege yàlla yàlla amul fu mu waxee ne ah. njaaloo baaxul y de des de personnes qui parce que waxtu bi daf ñoo dab wax ñu yàlla dane uh-huh. laa taxara buusi laa taxara buusi naa mm-hmm. bul laal te bul jege ki ne la mm-hmm. bul laal bul jege su ma la joxee sama kurus gi mhm. kurus gi mooy tijji téléphone bi ma ne la bul laal kurus gi. Mhm. est-ce di nga am accès si téléphone bi. déedéet d'accord loolu lool loolu leen na nañ euh, Pathé waxtu bi daf ñoo dab depuis tout à ñu ngi may def siñ que waxtu bi jeex na en tout cas man fi may fi may fi may terminer rek mooy souvent dañuy dañuy wax takkante yi si daayira bi normalul mais man je damay wax damay rejoindre Assane c'est très normal comme ni ma ko fi waxee woon euh, saawaay di ma ko wax léegi muusu kër gi dañoo war napp si jinaxu kër gi te je pense que ci ci ci daayira bi bu ngeen fa nekkee yëf ñàkk fayda nekk di doxaanantee def yëf ñàkk fayda foofu war warul am ci biir daayira donc c'est très normal ñuy bëggante ci daayira ci daayira yi di takkante si daayira yi loolu je pense que suñu borom sax da daf koy daf koy ni nga ko waxee macha allah ñu ngi lay ñu ngi leen di euh, di tàggatoo rapidement. waaw donc damay damay santaat yàlla rek di wax ne ndigal lañ fi ñëwee. Mhm. ndax bu ñu tey daayira bi nga xam ne moom la ñu bokk. bu ñu mhm. joxul woon ndigal. Mhm. duñ fi ñëw. donc ndigal googu ñu ñëwee. di wax ne président. yaa ngi seetaan xam naa émission bi. donc di la wax ne. gàmmu gi yegg si na le 15. daw si ñibbise parce que daayira bi soxla nañ la mhm. njaboot gi soxla nañ la mhm. képp koo xam ne jullit la mhm. du wuyoo baatu ashadu an la ilaha illa allah ñu ngi lay woo ci suñu bés boobu di la quinze février incha allah gàmmu kër Serigne Mansour d'accord incha allah plateau bi yëpp nga jaajëfal yow tamit soxna Faat jërëjëf Souleymane euh, Pathé ñu ngi lay remercier ñu bàyyi aussi di tàggoo rapidement que là où il est ah ah. loolu benn benn xam-xam moom moo ko doon wax ah euh, on est on est Ndoye di kontaan ci ñi nga xam ne ñu ñu doon bàyyi xel ñi nga xamee ne que déjà suma mbokk moustache diin yi laay le la bëggee moom c'est un grand frère boo xam daf kontaan ñi nga xamee ne que ñu ñuy doon bàyyi xel depuis ce matin d'accord merci beaucoup euh, Pathé Mbengue ñu ngi lay jaajëfal di la jox rendez-vous euh, semaine prochaine euh, incha allah ngay ñu beneen thème bu am solo ba tey ci li nga xamante ne mooy dox dox bi dañuy daal di ñëw léegi-léegi ñu dem ci rubrique li woon démb ngi noonu li woon démb Mbaye Babacar ndax sax man ma fekkee kon ndax jeudi passé ba nga koy tàmbali ci suñu bourse yi euh, fekkuma fi woon. wallaay dañ lay bàyyi nga daal di def sa continuité rek. jërëjëf euh, Fatka euh, di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di ñëw rek di eggale maanaam suñu maam yu baax yooyu nga xamante ni jot nañoo falu foofu ca Siin nga gis ne alxames bi passé ñu ngi yemoon ci Lat Sukk Coro Fay ñi nga xamante ni. bokk na ci ñë fa falu tey ñu war a tàmbale ci ki nga xamante ni moom moo di Makoddu Koddu Diouf Makoddu Koddu Diouf moom nga xamante ni euh, gelwaar la ci wàllu ndey ndax euh, ki nga xamante ni moom moo di Koddu juuf ndeyam moo tax mu mënoon a falu foofu ci Sine nekk Buur Sine ndax euh, bàyyam Birima Fatma Cubb bi mu gàddaayee jóge Kajoor dem Sine